théâtre radiophonique bi ngeen di ñëw déglu mu ngi tudd meññeefu jubte nijaay nijaay ah xewal ñëw na mooy sama xarit bi faama moo ma woo léegi dina fu muy liggéeyee de daa am benn poste vacant bu fa nekk ah. léegi ma ne naa fa yóbbu samay dossier ah, comme am naa diplôme yi ah. ma déposé pour foofu liggéey loolu di laa bëgg. Ah, waaw waaw kay loolu lu baax la loolu kay lu baax la gis nga kër gi nu mu mel dama naa ñu feebar naa mënatuma dara ñaan ko xale bi demetul noonu tamit ah léegi boo kay ko amee kay dina baax ci kër gi waaw kay yal na ko yàlla may nga ko may dem. am naa dem naa. salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si ça va noo def. maa si jàmm bu baax si jàmm bu baax. sant yàlla ça va. léegi eh, man dama ñëwoon tey déposer sama dossier yi concernant poste vacant bi. ah ok d' accord léegi da dem toog fee dafa am ku nekk si biir bu génnee rek yow nga dugg ci biir. jërëjëf si biir waaw d' soxna si. xam nga dugg directeur baa ngi si biir. salaamaaleykum. maaleykum salaam. directeur. soxna si. sama dossier yaa liggéey bi moo la tax a jóg waaw toogal ah kayit sa kayit yi yëpp mat na indi nga lépp lañu la laajoon xanaa kay waaw lépp jekk na xanaa kay ni ni ni ñu defee kayit yi jékkee nii ah. boobu moo leen gën a jekk xanaa kay li ma bëgg mooy ñu am fu ñu jaar rek waaw ñu sékk daal nga jox ma li ma bëgg ma jox li ma li nga bëgg ah. ah. loo bëgg ah, ah, man de borom kër laa damay sëy. ah ñi am jabar ak ñi amul jabar yëpp ñi am jëkkër ak ñi amul jëkkër yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy def donc euh, kon. jiitooji mu jooji waaw boo paree mën nañ koo def. ah dëgg la te ñooñu dañ koy def ñoom te bëgg naa liggéey bi trop waaye man nag duma def loolu parce que bu dul la bu dul dara sax benn diine dagal li nga xamante ne mooy njaaloo muy ki am jëkkër ak ki ko amul te bu loolu weesoo tamit feebar yi bëri nañ trop si dëkk bi li ci mel ni sida wala hépatite B yooyu yëpp ñu ngi fi ah man de directeur yow bu fekkee jigéen bu fi ñëw seet nga ak moom kon de war ngaa ah bu dee loolu mooy taxawaay sa dossier yaa ngi nii boo ci xalaataay réité hmm, woo liggéey bi nga defal ma li ma bëgg ma defal li nga bëgg. donte bëgg naa liggéey bi trop mais mun maa def li nga kon bàyyi ma ñëw. waaw ah, waaw kay mën ngaa dem. bàyyi ma ñëw waaw ah, bi teg ko nii rek mën nga koo teg nii maa ngi dem. merci. madame Paye. oui monsieur tey lan moo xew. si la. loolu journée bi yëpp da ngaa tuuy ah madame yow mii baa feebar. ah madame Paye. feebaru nag ñaaral ma jàmm de. bi sida bi bàyyi na de boo doo boo jógee nga dem xool docteur nga def ay test madame Paye. sida ak yow yëpp. ah yàlla tere. ah jamono jamono bi jamono bi xamuñu kan la ñuy wóolu ak kañ ñu bàyyi la ñuy bàyyi de. li nga wax na nga ko ah naa dem moom naa dem su may dem nga def test temps yi mu ah, euh, mi wax na lu yéeme mu naan ci sida ah, man mii moo ak fi ma jaar yépp te ma am soxna am ay doom bu dee am naa ci feebar boobu wala yeneen feebar yi mel ni hépatite ma jox ko suma njaboot ah man xaw ma fan laa jëm loolu est-ce que ko àttan ah ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xoolaat suma bopp jot na xoolaat suma dundin defaraat suma toogin jot na xaaral ma dem léegi ci madame bay secrétaire bi ma wax ko mu jëlal ma rendez-vous madame Mbaye Euh, soxna si génn léegi léegi léegi après nga wool ma ko nga ne ko mu jaaraat fii nga jox ko rendez donc mu jaar fii suba nga ne nga teg ci wool ma suma médecin bi nga ne ko lu mu gën a gaawee ak soxla naa ko waaw mu am rendez ci moom lu mu gën a gaawee ak defal loolu merci madame Mbaye Ndiaye. waaw. yaa ngi toog. maa ngi naka yaram bi. di yaa ngi fi. ah man de dem naa ba ñëw. waaw waaw doo fa de li ma jëlee fële. ah joomal na ma trop sax. déet directeur bi de. ndike moom daal li du caaxaan la. ah man naka laa demee. waaw jox ko sama CV. mu xool ko xool ko ba mu neex ko. waaw mu ne ma daal mu jëma liggéey bi. Mm. naata daal moom. nga ni. ah lii de la ma wax. ah loolu mën a nekkee ci biir dëkk bi. man de damaa joom kon Sénégal léegi yàqu na. yàqu na trop sax. pour nga mën a am liggéey de foog nga tëdd ak ji pour pour pour mu jox la poste. lu bon lii da la wax. ah lii de jaaxal na léegi loo ko tontu yow. ah xam nga ma nag man dama ko ne ma def loolu parce que man damaa am borom kër te du ma njaalo. sa sa waa ji na kontaan na si yow mën nga def naka su dul noonu nga xam ne nga nga nga jàpp ne sa jëkkër feebar na rek nga def a neex sant naa la gërëm naa la voilà ba tax na kàddu yàlla nee na jéeg bu jàmbaare day tëral jëkkër ja waaw madame. noo def. maa fi. yaa ngi la ah lu xew nag. monsieur John daf la soxla woon suba man mii mbaa jàmm. Euh, dafa am rendez-vous ak yow suba suba ah baax na kon incha dinaa ñëw. Ah, waaw ba suba. merci. alaaji waaw yaa ngi toog yaa ngi toog waaw ah man de mooy secretaire bureau boobu ma demoon mm-hmm. mooy kooku noonu rek waaw boobu nga xam ne dafa bëgg caaxaan waaw secrétaire am bi de moo ma woo ba ah, jàmm ah man de ndax daf suba mm-hmm. ma ñëw foofu noonu ah, nee na directeur bi moo bëgg a gis ah. dix heures loolu mbaa na rek ah alaaji nag jarul ngay jaaxle man duma def nakasul dool pour liggéey

waaw maaleykum. maaleykum salaam madame Mbaye. waaw madame Ndiaye. noo def noo def yaa ngi si jàmm. waaw yaa si jàmm bu baax. waaw directeur moo la soxla woon tey moom nga amoon rendez-vous mën ngaa dugg ci bureau bi mu si biir. waaw baax na jërëjëf d'accord. salaamaaleykum. maaleykum salaam madame Ndiaye. yaa ngi ci waaw taxawal taxawal madame Ndiaye. ii eh, jaru ko bàyyi rek ma taxaw nii. madame Ndiaye ah madame Ndiaye ki nga fi fekke woon baa ki démb ak ki nga fi fekke tey ah, wuute nañu moo tax ma lay ñaan rek nga toog nga toog ñu wax. tey eh, ma rek toogal leen madame Ndiaye ñoom la soxla am na ah, baax na bàyyi ma toog waaye fi li ma la waxoon ne maa ngi ci loolu ba léegi. Ah, madame Ndiaye boo gisee ma wóor la mm-hmm. mooy yee ci àdduna danga maa yee ci lu baax Eh, nga nekk jigéen ju baax jigéen ju jub jigéen ju dëkku sa CV gaa baax waaye li wër waa tax ma woo mooy di la njëkk gërëm ci li nga ma yegee ci àdduna waaye di la ne liggéey bi fi bàyyi woon yow lañ ko bëgg dénk ah man mii waaw yow moom li tax ñu def loolu nag mooy ni nga dëggu ndax eh, bi ma toogee xoolaat suma xel tax nga ba ma ne waxtu nekkaat nit ku ees jot na te loolu lañu bëgg ci suñu Sénégal bi maanaam ñu mel ni yow ñii yee nit ñi ndax suñ ci amee ñu bàyyi xaar kanamu suñu dëkk dina mel ni dina gën a baax dina gën a jekk te bureau bi entreprise bi soxla na loolu ñiy jubbanti donc moo tax man la boo paree nga jaar ci secrétaire bi ngeen def li ngeen di def yépp fii kel quelque fan rek nga ñëw nga liggéey nga commencé sa liggéey te am na yaakaar trop trop trop ci yow ndax li nga ma woon donc yaakaar boobu nag lépp mu ngi nii ci sa loxo nga def liggéey bi nu mu waaye merci madame Ndiaye. directeur maa ngi lay jaajëfal jaajëf kon bàyyil ma ñëw ma jaar ci secretaire bi ah ñëw dem. allez merci madame Ndiaye jërëjëf merci. Ndiaye. yaa ngi toog. ah danañ sant yàlla. Uh-huh. waaw waaw. directeur bi de moom daa mel ni. Mm-hmm. ah xelam soppeeku na. déet bu ma demee de. Mm-hmm. liggéey bi nee na man la ko jox. ah sant ba yàlla. waaw sant yàlla kay bu baax loolu de la wax. waaw kay noonu la da nga am ñaanu waajur. soo nga topp ci kër gi. da ngaa lii nii. ni ko ni ko nit ñi di waxee. kon. na nga ko na jàpp liggéey bu baax a baax a baax a nga xam ne li ne ci kër gi métti na lool jaajëf jërëm gërëm naa la kàddu yàlla nee na kuy jubal jiital mat njub njublang ak wor de tellu de kàddu yàlla gi ne tamit alal du jariñ bésu mbugal njub mucc ci gàtt fan déglu ngeen théâtre radiophonique bi te ñi ko bind ñooy DPTLL di. Louis Mbaye Ndione. Mami Massaly. Véronique Sène. Toussaint Marcel Ndione. Dorothée Diop madame Ciss. Sophie Coly.